nañu u gi yëpp ñàkk na euh, tarixa tijaan ya ñàkk faydu Mawlana Cheikh al Islam ñàkk sa mag ji di Cheikha euh, tàgguñu tey nga ñëw pour tett ko fii ci barab bi ci fii nga xam ne fii la àdduna bi yëpp dawal si ban émotion nga am di sant yàlla rek julli ci yonent bi sallallahu alayhi yàlla mi nga xam ne moo ayoo ñu sant ko ci lu neex ak lu naqadi waaye ñi ngi wax inna lillahi wa inna di jaale soppi Cheikh Ibrahim yëpp di jaale àddina bi ndax Cheikh Amaram ñëpp ko ñàkk waaw Cheikh Amaram nag def témoin yi ci moom yomb na yombul doomi Cheikh Ibrahim la ku teel a jàng alxuraan mokkal ko di ko jàngale comme ni yonent bi wax ne ki gëm ci yéen mooy ki jàng alxuraan te di ko jàngale Cheikh Amaram loolu la def waaw ubbi na ay daara ubbi na école moo moo njëkk a tare alxuraan ci jigéen ñi moo magam umu këlso ba moo tax rakkam yëpp di ko roy ci jàng alquran moo njëkk a ubbi école rakkam yëpp di ko roy ci di jëm di aw ci ay tànkam rek waaw Cheikh Ibrahim Cheikh Marème baax na bëgg na njaboot bëgg na nit mën na joxe ñam mën na dimbale nit tabe na ku bëgg baayam la ku bëgg alquran la ku bëgg Cheikh Ibrahim la loolu rek doy na sant yàlla te bàyyi mi tam ko bëggoon la ndax ànd naag moom ay aj ànd ak moom ay tukki fi nekk daal suñ xol dafa fees waaye li ñu war a wax ci moom bëri na lool.